koodu lislaam nag mooy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah boo ko waxee rek dugg nga ci système bi loolu neex na am nga ci kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy mbootam yàlla mu mag qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhbibkum allah su ngeen bëggee yàlla topp leen ma yàlla bëgg leen garanti la boo xam ne ku ko sañoo wax rek mu ko ñemee wax amul benn yonent bi ko wax bu ko mos a wax moom rek moo ko mos a wax dafa am benn at ci Saudia ya, benn sëtu baay nekk ci benn classe professeur bi nga xam ne jàngalekat la dafa dingat baay ndax mooy ñooñu nga xam ne gëmuñ soufisme gëmuñ euh, màggal yonent bi mu ne ana ki maamam di wax ne ku ma bëgg àjjana euh, euh, la jëm mu ko sama mom ne ko est ce que sama sama mboxoon ya. ya, ya, mm-hmm. mm-hmm. na ko de ne ko parce que amu ci droit mo ci am droit mo tax mu wax yalla bula maye ke mun la xañ te bula la xañee itam ken mun la may li am solo daal moy yonent bi bu ñewé da fay indi daiman xewal fepp fépp xamne dajé am na fa te yonent bi tax ku fa jógee da nga jël da nga jëlee xewal mm-hmm. ben nga jëlee fa am am mbaam yàlla parce que koy balu te booy balu yàlla ànd ak mbooloo mu bari mbooloo moomu ay nit yàlla ngi ci yoo xam ne buñ ne amiin yàlla nangu benn waaye dafa nekk ilimaan yoo xam ne bi mu nekkee xaleel dafa sàgganoon lool waaye bi ko yàlla defee muy mag yàlla delloosi ko ci xelam ba mu tuub li mu daan def lépp bañ def ko mooy ilimaan yi dëkk boobu gox boobu yëpp mooy seen ilimaan mu taxaw ci min baram bés a àjjuma ba muy ñaan mu ne suma borom ma nga leen ñaan nga baal ki gën a sàggan ci ñun tey tey ak démb gars yi xamuñ muy wax am benn wala yu ci sàpp yi wala yu woo ñu teg ci duut diir waa ji gaañu bi mu gaañoo benn nitam bu ko jege nitu yàlla gis ko ci xewal gu yaatoo yaatoo yaatoo ci biir aljanna mu ne ko xamoon naa ne lii la yàllay jox parce que li nga liggéey yàlla bëri na mu ne ko li nga li nga gis nii loo foog ne moom ko may mu ne ko sa liggéey bu bëri ci lislaam mu ne ko wallahi du li nga gis nii yaa ngi ko ci àjjuma yi passé ni ma taxawee ne yàlla yàlla nga baal képp ku gën a sàggan ci mbooloo mi wallahi suma bopp laa daa doon jublu parce que dama ko woon suma démb waaye bi ma ko waxee am nitu yàlla bu yàlla nangul ni amin aminam googu ma mu dugal aljanna donc yàlla mbiram yépp ci nit ñi ci da ko jaar yaay yàlla mënta jëflante directly mën jëflante directly kon euh, ba intermédiaire rek ci lay jëflante bu lay jox daf koy jaarale ci nit alal yi nga xam ne ñu ngi koy dundee yàlla ko joxe waaye du na moo koy yëkkati joxe ko waaye daf koy jaarale ci bunt boo xam ne dala wóor ne agsi na ci yow te xam nga ne joxoo ko sa bopp yàlla moo la ko jox kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy yàlla mooy yonent yàlla mooy ki nga xam ne lépp loo xam ne war na koo wax nit ñi wax na leen ko am na bi muy waaj a génn àddina am na àjjuma mu ñëw julli si fajar taxaw ci kaw minbar bi di waxtaan ba tusubaar jot mu wàcc julli tusubaar continuer di waxtaan ba gee waa ci julli takkusaan waa ci julli timis waa ci julli gee saxaaba yi na nañ yonent bi bàyyiwul dara loo xam ne war naa xew wala mos naa xew wala dana xew si lu ma yonent bi wax na ko keroog ñu ko ñu ko xam mën koo fàttaliku fàttaliku nañ ko ñu ko xamut yooyu nañ ko kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom xamoon na lan mooy mission am te itam dox na ko comme il le faut moo tax même bu fekkee ne am na njuum sax bala ko yàlla wax njuum njuumteem daf daf koy wax ne afallahu ank baal naa la di tax nga jox leen digal ñun njuumte sax buggul yàlla buggul yonent bi yëpp ne am na ju buñ ko war a topp moo tax yowmal tiitee daw dem suñ maam aadama mu ne tey taluma leen ñu dem ci seen naam nooxin mu ne taluma leen ñu dem ci Seydina Ibrahima mu ne ma leen ñuy dem di dem ba ci Seydina Isa mu ne man talu ma leen <laughs> parce que man dañ ma doon tuumaal ne man maag suma yaay ay doom <laughs> jabar eh, suma yaay mooy jabar yàlla man maay doomu yàlla <laughs> man kay taluma kenn tey ñu ne kon nañ nañ dem ci ndeyi mbi liggéey ñu daal di ñëpp ñëpp ñëw ci yonent bi ne man maa bés bi dali jóg rek jubali fa yàlla nekk xadaratullahi ba bi mu ñëwee ba ci bunt bi nuyoo saxaaba bi ne eh, malaaka mi nekk ci bunt bi ne ko kan la mu ne ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daawul yëkkati boppam mukk Muhammad rek lay wax man Muhammad laa tudd Muhammad laa doon eh, eh, lépp lu may def itam ci Muhammad laa koy defee moo tax Alhamdulillah ak am am secret yi mu am. alhamdulilah moo tax fi mu ne nii ba mu fëggee yàlla na ko duggal bàyyi leen ko mu dugg mu ñëw bëgg a sujjóot yàlla na ko tey du ba sujjóot. sujjóot moom tey du bésëb kan yëpp dama guñ Ya yàlla digal ko ne ko tànnal sa xeet yëpp ko ci bëgg rek yóbbu ko aljanna keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom rek moo am booba garaat yonent yëpp topp ci gannaawam ndax yàlla bu mayee moom kenn mën taxañi lim la may nag yow boo ko xamul sax da nga xam ne ki ko ki la may mayoo ko sa bopp yow kon am na ku la ko may ki koy may mënta nekk keneen ku dul yàlla moo ñun yàlla rek lañ gëm yonent bi rek lañ gëm lislaam rek lañ gëm alquran rek lañ gëm ci la ñuy dund ci la ñuy dee te ci la ñuy dekkal incha allah jërëjëf Niass ni nga ubbee leer na gàmmu su ñëwee ay am na ñoo xam ne dañ dee wax ne gàmmu war nañ koo màggal ñi naan yërmande am yi te foog naa ne tamit si jataay yi la nit ñi gën a war a xam jikko yonente bi salaalu wasalaam ay jaar-jaaram siiraam tax ñu gën koo soppa gën ko mun a def roy waay waaye am na ñoo xam ne dañ doon wax ne gaamo daal bi daal la yonente bi salaalu wasalaam gannaaw bu mu fi jógee saxaaba yi ko uutu defuñ ko woon soo waruñ di ko def loolu laa bëgg nga leer mais gamu ci eh, taarixu l'islam ci ñetteelu hundred ñetteelu hundred bi ci la gàmmu commencé xew te li ko waral bàyyi dafay wax ne képp ko am lay boo xam ne mën nga koo layee pour gàmmu jàpp ca waaye man sama lay bi nga xam ne mooy sama lay te ma jëlee ko ci alxuraan man looloo ma doy yàlla nga wax ci alxuraan ne dinaa lay nettali yonent bi kisaa yonent yu jiitu woon pour mën laa euh, euh, euh, dëgëral pour mën la wéttali pour nga xam ne yaa ngi ànd ak dëgg comme nag yonent bi sallallahu alayhi nettali ko kesi yonent yi ko jiitu woon pour ma mën cee dëgërloo loolu yàlla wax na ko ci alxuraan kon kay ñun tamitam ku ñu nettali xisna yonent bi ak fi mu jaar ak ak lim jog jànkuwanteel ñun tam bu ñu ko nettalee suñ gëm yàlla day gën a dëgër li ko li ko gën a prouvel mooy ne bàyyi bu toogaan di gàmmu ci Medina am na ñoo xam ne ay éefar lañ daan doon dañuy ñëw di seetaan si gàmmu waaye buñ seetaanee ba bët set rek bàyyi nag li ma doon waxtaan démb kan moo la la doy pour ma dugg ma dugg ci lislaam loxo yi dañuy yëkkandoo yëkkatikandoo ñëpp di tuub واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله كن لولو